ni ngeen di àndee également ak xalaas mu di suñu journal fait divers fii ci RFM ay xew-xewi jamono yu ñu fiy waxtaanee lundi ba vendredi fii ci RFM loolu mooy xalaas di jaajëfal bu baax a baax sa mbay mi nekk ci technique bi dend ak Aliou Ba gërëm it ñu ci àndal mu di Aba No Stress ci kanam tuuti war na yegg si ànd ak ñun ci xalaas jaajëfal bu baax a baax Malal Diagne junior li mu fanaan ci drapeau chef de l'état mu di wàllu lambu euh, doon amee fële ci stade Caroline Faye moo tax ba mais euh, nuyu sama waa ji passe partout mu nekk ci réalisation bu xalaas di leen xaar saa su nekk ci xew-xewi jamono yi muy waxtaane ak yéen fu ngeen mën di nekk ci réew mi dund xew-xewi jamono comme ni ngeen koy defee nii ci ñu leen war a indil tey mën ngeen a jokkoo ak Passepartout woo leen ko ci 77 150 17 17 77 150 17 17 ba tey Passepartout mën ngeen koo jot ci 76 177 17 ñu koy jaajëfal bu baax a baax le temps que kon ñuy sóobu ci xalaas yi ak yu xew-xewi jamono yu doy waar yi nga xam ne tey jii moom la ñuy tàmbale génn ci xalaas ci altine ji dañuy nuyu rek euh, partenaires yi ñu gunge ci xalaas euh, saa su nekk ñuy am mbégte di ànd ak ñoom tàmbalee ak waa Optique Vision Plus Sénégal bu ñu ko waxee xel dafay dem ci euh, champion yi ci walu lunettes spécialiste yu mag yi ci walu lunettes Optique Vision Plus Sénégal ken dootu ko présenté ci ci réew mi damay faral di wax ne fi mu nekk nii ku amati jaaxle ci walu lunettes wala ngay ordonnance euh, gisoo foo ko jënd wala ñu jaay la ko lu cher yow la neex ndax Optique Vision Plus Sénégal ñëw na jëlee ko fi lépp loo bëgg ci ay lunettes ay lunettes vision de près vision de loin ay progressif avec anti-reflet ay percées original and ak traitement X Blue wala euh, ay euh, li nga xamante ne mooy ay monture de marque yi ñu gën a ràññee ci àdduna bi nag comme ay Ray-Ban ay Ricoh Mirado Utica yu mu ci mën di doon bu ngeen demee ci boutique Optique Vision Plus Sénégal yi nekk ci réew mi ci réew mi laay wax ndax léegi yamatuñu rek euh, Dakar am nañ showroom bu mag bu nekk Dakar mais bu ngeen demee Kër Mbaye Fall boutique Optique Vision Plus Sénégal ma nga fa ngeen dem Touba wala fii euh, fële ci Mbour wala Thiès euh, Saint-Louis ak Louga fu ngeen ci dem Optique Vision Plus Sénégal mi ngi seen wet ngir di leen taxawu ci ay lunettes yu yomb te baax garantie mais également ay conseils jëm ci wàllu lunette ngeen soxla ay accessoires de lunettes Optique Vision Plus Sénégal mi ngi ci seen wet seen numéro téléphone mooy 33 821 54 57 33 821 54 57 wala 77 4 179, 63 38 Bataille qui est partenaire de ñuy àndal émission bii di Nous ñu dalal partenaire bu bees nous ñu fekk si muy euh, Universal Pouce Universal Pouce Nous bu mooy gam la bo xamantene ji gaam munuko ci euh, bo beugé sa karaw non seulement muy sekk mais également ci sekk bu rafet muy topoto sen karaw diko dundal gaam universal pousse mo ci man gaam universal pousse yegg Sénégal disponible nak ci fépp fu ñuy jaayee ay produits cosmétiques bu fekkente ne da ci soxla ay léral yu gëna yaatu soit nga bëgg ko yow personnellement gaam bi wala nga bëgg ko jënd di jaayaat wala nga bëgg jëflante ak ñom gaam universal pousse euh, woté len ci 70 336 05. 53 70 336 05 53 gamme universelle formulée aux extraits de moelle végétale comme conçue pour tout type de cheveux spécialisée formulée pour préparer les, les chutes de cheveux Euh, karaw buy ruus wala karaw boo xamante ne ji ni muy sëqe baaxul ba ci sax ñi nga xamante ne ji may sax yéen ñi bëgg a yor ay sikkim ak yu ni mel ngeen bëgg muy sëq ci anam bu rafet bi ci mën gën ci aay ci mooy gamme universelle pousse ni may wax numéro téléphone bi 70 336 05 53 jaajëfal leen bu baax euh, ci ñuy àndee ak ñun ci xalaas laata abaa di yegsi kon ñu soobu ci xalaas yi xalaas bi nag ki ko ki ko jottali passe partout nee na dafa bëggoon mu fekk fi Malal Diagne junior mooy euh, violence yi ñuy faral di nemmeeku rek ginnaaw bu événement amee surtout événement sportif kii mi ngi dëkk ko te Ngor euh, mais dafa am lu doy waar loo xamante ne ji def ko dund ci weekend bi euh, loolu nag ginnaaw benn match football bu am bu amoon ci stade bu Ngor muy lu doy waar lu mu dund moom la ñu commencé xalaas bi tey Maysa. bon maa ngi dëkk Ngor Almadi sama kër ak stade bi ñoo ñoo ñoo ñoo dend. donc euh, presque collé au stade il y a sama kër yaangi yaangi yaa ak muru stade mais dimanche passé vraiment ce qui s'est passé ici c'est inadmissible inadmissible jaraaf moo jouer avec ak FC donc maa ngi déglu léegi journal bi journal 22 journal bi maa ngi wa fédération bi di di di di di di def di condamner li fi xew mais vraiment ñun on était dans la peur. Hmm? Malal Junior moom comme léegi moom mi ngi si seen équipe bi vraiment bëggoon naa nga jàllaleel ma ko message bi moom mu jàllale ko parce que vraiment suñu koñ bi on a cassé six voitures dont la mienne vraiment suñu auto yépp la ñu toj on ne sait du ngaa ñu jékki-jékki rek gis benn furu bu jógee fële xale yi di xeex daqante gendarme jël auto yi nekk ci koñ bi yépp toj leen rajaxe leen suñu vitre kër yi moom yàlla moo def sutura sax ba ba kii mais indiscipline boo xam ne kenn mënu la wax nu nu nu nu nu mu mel. vraiment lii moom. parce que tamit fédération même bu condamné benn match bu toll ni match jaraaf. ñu indi ko si stade bu ndaw bi ak Tëngéej en fin de de de championnat xam nga lii dafa metti dafa metti ah sama buntu kër laa gaare ñu ñëw fekk sama oto un dimanche ñëpp di noppala ñu jël suñu oto yi teg ko nii ba ba seen xol sedd gis nga xeer lañ ci sànni nii doo xam ku ko def. moi j'ai dépensé soixante quinze mille pour réparer ma voiture si koo xam ne xamuloo sax foo koy jooyee gendarmerie soo demee xam nga tamit affaire yi day jeex ba nga xam ne tamit sa oto munoo ko jël di porte plainte di di téye sa oto il faut nga dem defar sa oto dem di continuer liggéey sa liggéey bon ñu ne ñeen daal yéen a fi nekk te ñu si yéen rek la ñu am pour wax li ñu naqari. bo bëggoon naa mu fekk fi bu fekk fi eh, aba sama waa ji maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay maa ngi lay ba yaa ngi ci jàmm eh, eh, salaamaaleykum ubbi ma ubbi ma yaa nga ca kay ubbi ma maa ngi lay ziar bu baax <laughs> mbaa mbaa lépp jàmm ñi ngi sant bu baax a baax Ababacar xam naa jamono ji moom li nga nekkee moo la bàyyiwul moo tax <laughs> waaye dara sant yàlla rek xalaas bi benn femme la boo xam ne ci violence yi am ci match yi lay wax mm-hmm. nee na keroog bi jaraaf ju football ak Tëngéej FC mm-hmm. stade bu Ngor

li ñuy reyante loolu moom dara mënu ko même bu noonu xam nga sax stade ba xat na ci biir dëkk la nekk tout ça so loolu yëpp d'accord naa ci mais match bi même bu ñu ko doon football ci ron lal fit na war ci dafa am ñoo xam ni fukki nit fu ñu booloo nekk fa dafa am ñoo xam ne dañ leen di rax li ci def naga surum noonu mais xam nga tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ASC bi di jënd seen i maillot sol maillot ASC bi mhm. di participer ci ASC bi ñooñu duñ yàq mais Ndiaye ñooñu ñoo a organiser wu ba keneen ku ci rax ñu seppi parce que ku bokkul ci ñun boo ñëwee di yàq suñu yëf dañ lay seppi teg la na le mhm. ñooy woo police ne ko kii bokkul fii mais da ngay gis match jeex wala ay làmb jeex boo def ful boo xam ni maanaam lu ñu romb ci boo rombee ci autoroute bi nga bàyyi àdduna làmb jeex wala match jeex booy yi def ful boo xam ni lu ñu romb ñoo ko moom scooter ak oto dañuy këf rek mais li ma jaaxal mooy loolu daanaka événement bu mag bu amee ba ca suba sa faaw dañuy ñëw fii xalaas indi fii victime mhm. mi ngi bëgg a yàgg mhm. Euh, luy problème bi maanaam ñi ko war a faj ñoo ci jéemul dara wala situation bi da leen di ëppi loxo wala en fait nuy situation maanaam lan moo koy lijjanti xam nga loolu tamit kaala ndax man moo fàttalikoo bu lambu ju mag amee ba ci suba sa faw ñu daje fii ci xalaas wax ci ñoo xamante ne dañ leen a yàqal. Mm-hmm, mm-hmm. lii match la woon te am na yeneen ñu fi am moo tax il faut ñu jël ci ay matuwaay Ababacar. yokk sécurité bi rek. Euh, beneen xalaas a ngi bu doy waar boo xam ne euh, man damaa xamul lii nuñ ko mën a tuddee waa ji dafa teggi nattam jënd ci fas wut saret yor ci këram parce que nee na papaam ak yaayam nekkuñu mais moom ak yaayam ak soxnaam ñoo nekk. Mhm. fas bii mu jënd nii wut saretam ci lay yor këram ci la wékk dépense am ci lay tedd nee na mu xëy gis ñu dagg làmmiñu fas ba ak paaka bañ ko daggee tegal ko abaa muy mbir mu doy waar boo xamante ne ji déglu ko. waa man daal yeewu naa sept heures di xëy àgg fekk problème bi ma àgg fekk deret yu bari si gétt fas bi waaw pour man nag xalaatu moon sax ay làmmiñ ay dara quoi pour man doon màttanteeg benn fas bi mu jegeel ñu kenn gaañ moromam ma xool kenn daggul ñoom ñaar kenn dag gisuma fenn dagg-dagg après noonu ma tourné xool gàmmu fas bi gis deret yu bari foofu gàmmu ngooñ bi tamit am deret ma ne waaw lii de deret yi de sam naa sama fas wi la ma tourné waat gis làmmiñ bi ñu tegal ma ko si pënu bi làmmiñu fas yi ñu teg ko si bi xam muñ tege lam sunu ma xoolaat gis paaka bi fofu après fas jégué jéegi ma tourné wal fas mom li làmmiñ la wala fas nga fas xol ma la daal di ŋaa nga ma gis affaire bi ci biir biir nañ ko dag ci biir biir waaw fas génné deret du bari waaw deret du bari lu mu ci perdre nek après mo mu ci wo vétérinaire bi ñëwé ñaar vétérinaire bi ñëwé ñom ñëpp ñu xol ni ma ki mom kenn mëntu si dara parce que fas yi ta lek fas yaagu tak man sax fas daanaka bin korte paré la ko jënd bin korte paré la teg sam ben natt jënd ko waaw fas fas mu doon liggéey waaw waaw laa làmmiñu fas yi moom kooku bu ñu koy dagg de man xaw ma parce que su fekkoon doo ko dagg yóbbu ko mën naa ni daa lu mu koy doyee mais bu ñu ko daggee pare fara ko bàyyi bi mu daggee pare fara ko ba waaw mën naa ni sama mën na maa soxore wala mu bëgg maa toroxal daal man daal loolu laa jàpp moom kooku dama bëgg a toroxal waaw waaw parce que man fas yi moo nekkoon maanaam fas yi laa yoroon sama kër man yor sama jabar yor sama yaay waaw parce que sama kër Kampala ak sama yaay nekkatuñ sama sama kër man maa fa nekk sama yaay ak sama jabar ñoo fa nekk si ak sama ñaar doom si laa leen yoroon moom moo dëgg yàlla amatuma si yaakaar parce que vétérinaire tamit loolu lañ moo neeñ ma kii moom xar yàlla ren moo des waaw dama si damay xar yàlla daal mu ñëw waaw moo dëgg yàlla amatuma si yaakaar moom jotewuma kenn tamit jotewuma kenn ah xam naa ne alxames si guddi lay doon parce que man ajuma laa yeewu fekk ko fa mais man ay 10 heures ay 10 heures si guddi man ñëw naa ba si fas yi wëggu ko mu naan ma sotti ko ngooñam jël li desoon ci ndox mi sotti ko si dugub ji jaaxase boobu waaw mais xam naa nag moom heure yooyu parce que ngooñ ba ma ko sotti loon sax lekk si ngooñ ba ma ko sotti loon lekk ko parce que laa ko fekkaat waaw da ngay xëy bi ma xëy laa gis muy ŋànk mais su ŋànkee ngooñ mi heure yi xiif quoi su ŋànkee du mën a dem du mën a lekk da koy yàbbiwaat waaw mu leer man lii si guddi gi lañ ko def xam naa moom si guddi gi la mais mun ma xam ban heure nag parce que fekk ma fa mais man ma yeewoo sept heures laa yeew dem fekk gis ko mel noonu parce que daal yàlla moo des moom waaw daal noonu moom. xalaas. man waa ji dama ko mujj yërëm sax Pikine ginnaaw raay la xewe dama xamul lii iñaan la. Mhm. wala yëfu maa tay la wala nit ñi danoo reew léegi bay lu leen neex ñu def mais lii dama comprendre lii lan la quoi nit ku jënd fasam teg fasam. nga dagg làmmiñu fas wi teg fa teg paaka bi yëfu maa tay la quoi lii ak iñaan mais mën naa doon gàllaaj tamit gàllaaj nga mais gàllaaj da ngay jël làmmiñ bi yóbbu aku lan loolu la soxla aku la soxlawul deret ji ubare am na ñu am fita ah. déet xam nga luy problème bi ñoom dañoo fàtte ne yowmal xiyaam dinañ ko layoo beneen bi ci topp mooy Ababacar xoolal mala xam nga fas ba mi ngi dund mais dalay leer ne kooku moom sa diir dire metti la na day souffrir ba dee déegu metti la nar a dee parce que déggoo li waa ji wax ne na vétérinaire yi nee nañ ko amuñu ci yaakaar da ngay toog rek xaar yàlla mu teggi natt jënd ko wékki ci këram di ci góorgóorlu ñoo defal ko bu dee ko def dafa mere waa ji def na lu ñaaw bu fekkente ne mbiri gàllaaj la ak ay xarxa fuuf ak yooyu def nañu lu ñaaw bu fekk man mënuma comprendre lan moo ko waral. Ndiaye gis nga pour un. Mhm. moom kii mu jël làmmiñ bi dagg ko amul benn défense. maanaam fas bi amul défense même hmm. bu dee fas bi am na dooleeg yooyu amul défense parce que dina yaakaar ni kii ko doon jox lekk la wala dara mu daal koy nax jëllaam bi dagg hmm. ki nga xam ni moom moo jëndoon fasam teg xamoon nu mu def ba jënd ko muy daw dépense ci fas bi di ci yor ay nit hmm. yow sa àq kooku ak àqu nit ñooñu nga xam ne moo tax nit yenn saa yi doo xam sax lan moo lay wax naa leen fi nga gis léeg-léeg nit bu dee dee bu ñaw xëy na yéenewuñ ko kenn de parce que doomu aadama dafa foor mais àq yi ñu gàddu àq yi ñu gàddu moo tax bala ñuy faatu dañ koy gis Euh, en parlant de àq xalaas bi ci topp benn femme la boo xam ne bitim réew la nekk jokkoo ak Passepartout moom non seulement dafa am lu lu mu dund lu ko metti mais da cee jaarale waxaale situation ñu bari ñu koy dund mooy ñi nga xamante ne ji seen mbokk góor day takk jabar mm-hmm. sëy bi neexu leen ñu dugg dugg dugg dëkk bi bata sëy bokk na ci sëru jëkkër ji njëkk yi moom sax nee na sër njëkkeem la yaa njaay xam naa njëkk yi njaay te njëkk yi koy def mooy ñi ba tas maam tas nañ ñoom fan doon sëy ci kër gi ne kenn dootu fi sëy moom vengeance lañ koy def kenn dootu fi moo tax it xanaa xamoo nag loolu moo tax ñoom duñ nekk ci jàmm mukk Ababacar gis nga jaamu yàlla bi bu ko yàlla bëggee teral yow nga bëgg koo toroxal doo jug ci fitna loolu loolu moo leen di dal moom du ñu xam li xew ci au au fin fond de sëy bi maanaam yenn saa yi sëy nga gis image bi nii ku góor ki ngay gis mooy dawal oto bu rafet bi. waaw mooy mel ni kuy xëyee ka gontoo ko wàcc ka nangam te wóoru la ndax soxna si moo ko wutal fa muy xëyee par yenn saay. waaw la ndax imaam soxna si moom moom fi muy liggéeyee ñoom wóoru leen. dañuy gis seen frère rek mooy dawal oto yi rek ñu ne moom. kii wóoru la sax ndax oto bi du prêt bu femme yi génnee jox ko muy dawal la suñu borom. xam nga daf eh, ndeysaan jigéen ñu baax ni loolu la yàlla nattoo seen sagu jëkkër. dëgg la da leen di jaral ñu sag seen bopp dañuy takk or ne seen jëkkër leen ko jënd. ñoo bokk natt ba tegg te bés ki day jot ñu jënd xar mi indi. abaa boo doon def liste. góor ñi jëndal seen jabar oor boo doon def liste. du bari de. ñooy seen bopp de. ñooy natt wala ñu liggéey seen bopp ba pare ko. ci góor boo fi gàdd yóbbu ko ci bijouterie bu demee day riir. loo ko tegal ni ko taale jëm laat. mu <laughs> ne li lay jar <laughs> eh lii eh <laughs> góor dafa mën a jaw or. léegi nag yow da ngay gis sëy bi di neex. mu leer na yow la koy neexal yow xamoo ko nga ne way suñu frère bi lu mu liggéey jox ko jabar ji. wallaahi kii nag fi mu gën a intervenir mooy ñi nga xam ne dañuy nekk bitim réew takk seen jabar yóbbu. waa kër ya ña ñu bàyyi ne ah ma ngi koy lekkale xaalisam ma ngay fo ma moom ci noonu la ñuy demee ba tas sëy. yaay femme divorcée yi delloo seen kër bu ñu vengé wu ñu seen ñu seen yoon nekkul yi. femme divorcée yi bu ñu delloo seen kër frère yi bu ñu vengé wu ñu di seen yoon nekku ci sëy <laughs> ayca nañ déglu déglu problème daal moo jaaxal xaw ma dañ ma koo def xaw ma lan la xale laa maa ngi fii ci Europe gi di liggéey dëgg yàlla di am sama wërsëg soxlawu ma dara namu ma dara mais damaa gis ni daal sëy bu ma dugg mu tas te xaw ma loolu lan la damaa bëgg ko ci dimbal defal ma ci ñaan ah ndax jaaxle naa fi mu ne moom maa suur sax jëkkër te léegi ñu tax sax ñu naa takk ma bañ parce que man xaw ma daal affaire bi daal lu ma jaaxal li mu naan dañ la koo def te loo xamante ni ñàkk naa ci lu dul jeex léegi loolu laa bëgg na ngeen dimbali ma ci wala ngeen jox ma boog kii malal boog ah man de jaaxle naa lu ma ci dimbali daal ma maa ngi liggéey ma ma dara kenn ku baax rek ku am diine man moom mën naa defal sama lépp yàlla seetaanu ma sant yàlla bu baax waaw loolu daal laa laa bëgg ko ma ci dimbali defal ma si ñaan loolu rek laa wut Sénégal dañoo war a bàyyi bu seen doom yi takkee jabar indi ko ci réew mi ñu leen di jógal loolu lépp ay jógal ay nit la day gis koo xam ne jëkkëram da ko indi fii Sénégal léegi mbokkam yi ne lan moo tax moo yóbbuwul rakkam wala magam jàpp la yàq yàq sa àdduna te loolu dara jaru ko fii ku kenn ku ne bu yàlla ne di nga ñëw ci loxo diw lay jaar ci loxo diw lay jaar di nga ñëw ci dëkk bi mais lii yàgg naa koo bëgg a wax mais damay ragal xam nga ñi nit ñi xam nga rek yàq sa der wala wax ji yegg fu mu yeggul mais am ngeen sutura moo tax ma ne xaaral ma jàllale ko xalaas ndax ñi koy dund ci dëkk bi dafa bari fii ci Europe gii da gis jabaram ku fa xam te ne jëkkëram da ko fee indi ay mbokk jëkkëram fexeel ko te loolu baaxul yooyu dañ ko war a bàyyi kuñ fi sa jëkkër indi ñu bàyyi la nga sëy mais lay jàpp yàq la tas sa sëy léegi après lan la loo siy jëlee jëlee woo si dara léegi xale bu jigéen bi mën na toog ci dëkk bi di liggéey yàlla di ko suturaal muy tedd mais nan lay def loo xam te ni yow sëy boobu kat da tas te loolu baaxul nañ bàyyi yàq bi nañ bàyyi ñii indi ci dëkk bi seen gore di leen yàq wala seen njëkkee yi ndax man lii moom njëkkee ma ko teg goro sax teguma ko mais njëkkee ma ko teg léegi yàq nga sama àdduna mais nag sant yàlla ndax man maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla maa ngi def lu ma bëgg ci àdduna rek maa ngi koy def lépp lu jigéen di def rek maa ngi koy def pour am sama yëfi bokk ëllëg te yàlla seetaanu ma ci yëpp wax dëgg yàlla maa ngi teral samay waajur mais ñoom bu perte am ñooy perte ndax li ñu bëggoon gis na duñ ko gis ci man mais Sénégal daal nañ ci bàyyi xel nañ bàyyi loolu nañ bàyyi bu seen doom yi indee fii seen jabar ci Europe gi rek ñu ne sëy day tas loolu baaxul tas yu jàmbur yi nii ci zéro loolu baaxul. xalaas. wala dëgg de. moo ci gis mooy ñaari kaay yi nañ malal. Mm-hmm. dañ ko indiwaat suba. ñu indiwaat parce que lii moom nit ñaa ngi koy laaj. ñu suba nga xam day fegg jaañ mu toog fi ñoo xam parce que lii Ndiaye lii actualité la. maanaam lu am ci biir kër yi. kii sax mais kii dafa takk fi tam sax abaa ñëw wax. mais déggu man xam nga moom nee na mu ngi bitim réew xëy na yàlla suturaal na ko ba ak coow li lu metti metti lu mu complique compliqué xëy na borom kër lay wut ndax fi mu nekkoon dañ koo tas te dégg lu gën a doy waar nee na non seulement dañ lay tàqale ak seen mbokk ba doo sëy ak moom mais keneen ku la bëgg a takk mu yàqu. dëgg la. te bul ko weddi de. dëgg la de. bul ko weddi am na ñoo xamante ne ji abaa bu ñu lay rendi tant que séparé wuñu bopp beeg baat bi duñu nopp. mais parce que mën ngaa seeti benn paa mu ne la kii sëy bii su ma ko xasee tas. kii yàlla suñu borom kii la ko booyaloon. waaw mën naa ko yàq nag mais su ma ko yàqee kii dootul sëy ngeen ko yàq ko mais kooku du sëyati. mais abaa xam nga dëddale ñaataa koy def. Hmm. ñetti téeméer. maanaam mooy barem bu seer bi. bu kawe ba kawe ñetti téeméer. mais Ndiaye baa xam nga ne du sëy rek. du du ay sër rek ay rak ay mag ak yooyu am na yaay yoo xam ni seeni sëy doom yi ñoo koy tas. am na ñoo xamante ne ji jëkkër ku góor ki leen waroon takk te takku leen mooy tas seen sëy am ñoo xamante ne ku jigéen ki ñu waroon a takk bàyyi ko fa dem takk keneen mooy tas seen. waaye yow ñooñu duñ ubbi beneen projet. waa topp projet bii de doo bii kii mu ngi ci yeneen yow doo def ubbi beneen projet. Ah, nekk ci mais mais yaakaar nag daa foorit nag. Ah, yaakaar yaakaar daa foor kii la waroon takk moom dalaa bañ a takk takku la ki nga waroon sëyal sëyoog moom. waaw waaye moom sëy naa keneen yow Ndiaye doo xam ni yàlla jeexul nga dem xooli keneen koo sëyal. mais yow xamoo nit bu siisu. Ben Laden mi ngay dégg nii coow lu bari li xam nga lu ko dugal ci li mu nekkee woon. Ah. waaw siisu. doo dem wuti jàmm yow nga ni kenn nekk jàmm. Universal Pouce, Optique Vision Plus Sénégal.